del si tey nag di waxtaane benn ci tomb yi nga xam ne yaakaar nañ ne am na yitte te am na njariñ te mooy ñi daa wax waa daaray kaamil daaray kaamil nag am mbooloo la moo xamante ni sëriñ bi mi ngi ko sasoon ci jamono yi mu nekk gànnaar ca Mauritanie ci diggante 1902 ba 1907 wax nañ ne bi mu ko sasee itam kuréel googu nga xamoon ne matoon nañ ñaar fukki nit ak juróom-ñett daf leen a jox turu bustaanul aarifin waaye di wax ne Serigne Touba it fu mu nekk bu fa mbooloo nekkee day tànn boroom alxuraan yi dëkk ak moom di ko jàng suba ngoon tànn ñaar fukk ak juróom-ñett nga xam ne bis bu nekk dañu jàng juróomi kaamil buñ julee fajar jàng ñaar. buñ julee subaar jàng kaamil gannaaw taksan jàng ñaar mu juróomi kaamil suñ demee ba ajjuma ci ajjuma ci ngoon ñu jàng juróom-ñaari kaamil loolu soo ko soo ko boolee ngay xam ne kon ay bis gi euh, lu bari ci kaamil lu xëy na ay ay 46 kaamil euh, soo ko xoolee ci weeru xool ko ci at mi kon lu baree bari la foofu la daare kaamil tàmbalee. ndax ñu mel ni ñi nga xamante ni matoon na ñaar fukk ak juróom-ñett. te sëriñ bi soso leen sos kurel bobu ca ganar. ñoy ñi nga xamé ni tam ñoo fété woon bu sëriñ bi soxla taxawal ak kër wala mu sax tax soxla tabax taxawal ab néeg ñom ñoo ñu la ko daan sant nga xamné kon iya woon rek ci jang alquranul karim waye dañ ko bolé ak liggéey ndax bu len digalee ñu taxawal ko ak kër wala ñu taxawal mu taxaw ñu taxawal ko ab néeg buñ ko liggéeyee ñoom ñoo ñi nga xam ne jàngkati alquran lañ ba noppi dañu fay daje itam jàng fa alquran njëkk ko wàcce foofee ngir sanc ko kër googee wala néeg boobee bala koo sëriñ bee sañc ñoom ñu nag nga xam ne matoon nañ ñaar fukk ak juróom-ñett wax nañ ne ca gànnaar kam loon ca bopp ba mooy sëriñ sëriñ Mor Kuna Mbàkke mooy ki ko njëkk a jiite moom daare kaamil ca gànnaar ginnaaw ba itam sëriñ Afiye Ñang wóotu na ko ca ci diggante boobu nga xam ne mooy 1902 ba 1907 bañ fa toxoo itam ñëw ba fa sëriñ ba toxoo ñëw ca yéen Jolof boo fa itam ka fa nekkoon njiit ci daaray kaamil jooju mooy sëriñ Hamsatu Jaxate nekk na ko fa ab diggante sëriñ Afee Ñang dellusiwaat tam wuutu ko fa ci diggante 1907 ba 1912 mooy juróomi at yooyu nga xam ne nekk na ko ceyin waaye it ñi mu yaroon jële ko ci ko ci moom fuñ ma sa am pénc am dëkk dañ fay def lu mel ne daaray kaamil loolu tey dafa dem balaw ba génn sax dëkk yooyu nga xam ne ñu àndoon ak moom ñoo ko sas waaye dem ci ba ci murit yi sax taalibe Sëriñ Tuubaa yi foo la fekk ci taax yi daañu fa am barab boo xam ne dañ ko jàpp ngir di fa jàng alxuraan ba ci bitim réew ñu nekk Amérique nekk Europe fii ne am nañu ay waxtu yoo xam ne ak barab yoo xam ne dañ fii day di jàng jàng gis nga lii nga xam ne mooy xew Tuubaa jamono yi jamono ñu nekk sëriñ bi woote bëccëg boo xam ne bëccëgu jàng alxuraan nga xam ne kenn du xam ñaata junni kaamil lañ fay jàng loolu yëpp mi ngi juddoo ko juddoo ci yittey Serigne Touba ci euh, njàngum alxuraan karim bi 1912 jotee itam ba mu fay jógee jëm si njaareem ca la ànd ak waa daaray kaamil jooju waaye nag dafa digal Serigne Afia Ñang mu des Touba moom jiite kuréelu daaray kaamil bi nga ne moo féete woo Touba ba boobale nag ba léegi ji fa lillaahi alhamdu wa sukuru daaray mi ngi def liggéeyam boobu ci jàng alquraanul karim daaray kaamil ju mag ji nga xam nag moo nekk Touba biñ taxawalee jumaa ju mag ji bam yemb ci le 7 juin 1963 Cheikh Mouhamadoul Fadal dafa jagleel xubba boobu dendeek barab bu mag bi daf koo jagleel muy kërëg alquraanul karim ñooñu di ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu itam di fa méngoo seen ab liggéey wax nañ ne daari kaamil jooju itam muy ji nekk Touba ci biir jumaa ji sëriñ Afia ñang la ca jiitaloon ginnaaw bi fi sëriñ Afia bàyyi ko sëriñ Joogu mbakke moom itam jiite na ko naka noonu sëriñ Sam Mbàkke jiite na ko naka noonu sëriñ Moodu yonni jiite na ko ginnaaw ba sëriñ Abdou Samad Bousso itam jiite na ko bam yegg ci nag sëriñ Muntaxa Jaxate moom sëriñ Amsatu jakate moom nga xam ne moo ko jiite ba léegi ñoo ngi koy ñaanal yàlla sunu borom may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram. waaye lu tax sëriñ bi mënees na analyser wala ñu gëstu lan mooy sabab ci loolu sëriñ bi dafa ñëw jamono suñ borom di ko liggéeyloo ci yeesal diine diine kan dini sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ba ko ba muy samp diine alquran la ko sampe woon motax ku ñëw di yeesal diine jumtu way bay lañ lay joxat motax señ bi joxat ko yàlla suñu borom joxat ko alquran mu nek lo xam nak señ bi da ko téye jiitu ko ci lépp ndax do na wut ngeureumal yàlla di root leer yàlla ci anam yu bari ci xeeti wirdi ci xeeti zikkar yi waaye dafa xëy xëy suñu borom ne ko bayil yoy yep te nga jël alquran kesse fofa la jaayante wax ne uaahidu ala ahzil kitab بخدمة للمصطفى باب الصواب كروك لا توبة يالله جيب جنت صلى الله عليه وسلم فبات القرآن نك داري واحد مانجي جاين تجعل كتير القرآن الكريم نجم جمعنا يا حميد نك قديك أجيب أقولك دعنا نجبول الجروم نياري كامل وعي لولا نك سخط بلاجي نيانت كامل دار موي لين خبنا سخنا آه، بمهم لن يدخل فيه توبة لولا بوكو وانيه mbokki jullit yi dafa mel ne kon quatre fois sept vingt-huit la mooy ay bis bu nekk benn kuréel boobu matoon ñaar fukk ak juróom-ñett dañ wàcc kaamil bi ñaar fukki yoon ak juróom-ñett loolu itam boo ko nattee ci par weer da ngay wax vingt-huit fois quatre muy cent douze mooy ci weer wi kon kuréel boobu lañ wàcc alquran lu tolloog téeméeri yoon ak fukk ak ñaar lol boko ko set ci admi tam 112 mo ngay multiplier par 12 mu jox la 1344 muy junni ak ñett témèr ak ñen fuk ak euh ci ay kamil kon daaray kamil serigne bi moko ko nonu ñu dëkke wacc alxuraan nonu ah tey ji allah mayes na wax barab bi di Touba dama koy faral di wax ne moy suuf ci ëpp liñ koy war di jang alxuraan te lepp mi ngi bayiko ci tem jojo suñ borom it fab alxuraan jox ko sëriñ bi sëriñ bi neen sama borom daf ma ko may la wax malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa samanan wala yudibu nafaqa dafa sama borom daf ma koo may ci anam yëpp anam yi ñi maye tax nga moom yëpp ndax malaktuhu dafa ne moom naa ko hadiyatan sama borom may ma ko wa sadaqa mu sarax ma ko wa samanan mu jaay ma ko yii nag ku ko moomee yëf yaa ko moom suñ borom nag kon def ko muy koo xam ne da koo sàmmloo kon téere bi da ko koo jox may ko ngir mu di ko ko sàmmloo mu wax ne xafisa rabbi zikrahu bi ci man mii la alquran yàlla di wattoo téereem bi te daaree kaamil jooju nag niñ ko waxee ci njëlbeen gi ba ko sëriñ bi sosee gànnaar mu jaar ci yéen jolof am fii ci Touba naka noonu itam am na ca njaareem ak ci yenn dëkk yi nga xamante ni sëriñ bi ko sosoon wala mu digle ñu sos ko euh, kon boo dee set bu fekkente ni 1902 ci la demoon Mauritanie ba 2023 ji ñu tollool téeméeri at la ak ñaar fukki at ak benn loolu itam boo ko doon natt ci toll la rek mooy da nga xam ne kon euh, cent 121 ci ay at nga bokk multiplier 1344 ci ay kaamil ci tollale moom ci mennam at mi day tolloog cent soixante mille six cent vingt quatre muy téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak ñaar ci ay junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci cent vingt et un na muy téeméeri at yooyu ak ñaar fukki at ak benn. suñ borom dogal na ci moom alxuraan tasaaroo ci moom alxuraan yaatoo ci moom alxuraan sax ci moom ci xolu jullit yi waaye surtout xolu taalibe yi waxtu wu de ñu di ko ñu di ko jàng di ko durus suba ngoon di ko jàngalu dëkkam bii mooy dëkk boo xam ne ni mu ko waxee léegi sa sa nattango bi muy dëkkub million daara parce que li fi nekk ci limub ay daara xaw ma ko feneen te bu ñu limub ay daara kon mooy ay limub ay ndonga macha allah moo tax gis nga ba ci concours yi international yi xale bi mujj jël euh, concours euh, ci ci Dubaï jël jël paie bi muy première bi premier prix bi. xale bu jigéen la fii la fii fii la dëkk alhamdulilah ci at yi jiitu woon gis nga macha allah xale yi saa bu ñu demee concours international suñu borom di leen ci may lépp di leen may lépp fàggotee fu sëriñ bi la boo xam ne ñaan na ko borom waaye it jëf na ko ci terrain bi waaye nag yar na ci aw ñoñam ba nga xam ne macha allah tey jéb na sëqi na naat na eh, yal na yàlla dolli koy leer te it waxtu wu nekk mu jëriñ ñu ci moom. Eh. kon lii mooy Daaray Kaamil nii itam la ko sëriñ bi. Eh, taxawle woon ca gànnaar muy dox ba jëmmi jamono ji ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala lépp loo xamante ni jàng nañ ko ci ay e, kaamil barke ba wàcc ci Sénégal wàcc ci àdduna bépp te itam sunu borom tabaaraka wa taala ña ko mas di taxawee ba mu ko sosee ci gànnaar ba suñu jëmmi jamono ji ak lii jëm ci kanam insha allahu taala sunu borom gën leen a dooleel leen kàttan kàttanal ba nga xamante ni na ko sëriñ bi bëggee woon ak loolee mu ca yéene woon ngir am boppam ak njabootam ak ña koy jàng ñoom seen jëmm ak mboolem jullit yi itam loolu lépp lam ca yéene woon ca yéeneem jure ji itam sunu borom fay ko ci moom lu kawe njort waaye fay ko ñi nga xamante ñoo ko doon taxawee ak képp koo xamante itam bëgg naa taxaw woon lool amoon ca yéene te bokkul ca ñooñee itam sunu borom mën na loolu yàlla na ko def ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne lii benn la woon ci kuréel yooyu Euh, nga xamante ni des na nag ña nga xamante ni ñoo féete woon di bind alquranul karim loola waxtaanu boppam la waaye ña nga xam ne itam wala barab ba nga xam ne moom la ko daa beral ñu koy wax kàgguk alquranul karim euh, loolu itam waxtaanu boppam la waaye lii nag lañ ci jukki woon di sant ñëpp di gërëm ñëpp muy nekk loo xam ne itam bëgg nañ ku nekk di ca roy nag bëgg nañ itam ñooñu nga xam ne ñoo yore daal di kaamil ku nekk am taxawaay bu mu jëmee ci ñoom ndax buñ xamee seen liggéey bu rëy boobu ak lim jëriñ Sénégal ci lu feeñ ak lu feeñut ak lim jëriñ àdduna ak alaalamul islaam yi ci lu feeñ ak lu feeñut dañu xam ne ñooñu liggéey nañ fi liggéey bu rëy boo xamante ni ci ndigalal ala abdullahi wa xadimu rasulillahi kon yàlla ñu ko yàlla fayal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام الذي في كل نزال وفي سفر